bismillahi rahmaani rahim wa kafa wasalaamaahu ala ibadihi alladina astafa mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax den ziar ñëw fii ci jumaay Tuubaa ji ànd ak borom xam-xam bu mag tudd docteur Ismaïl Hamouni di borom xam-xam bu jógee Maroc bokk ci tariqa suufiya darqawiya waaye muy intellectuel bu ràññeeku foofu di bindikat di poète di philosophe euh, publier lu bari euh, doon ku am yitte ci gëstu tasawuf euh, waaye tamit Sénégal ñor ko tasawuf ñor ko yoonu murid ñor ko mu yàgg a jëflanteeg yoon wi xam naa sax am na ay colloque yu fi amoon invité woon nañ ko ci jëf la joole woon nañ ko ak sëñ Sambuso far xam naa am na ay ngant yu amoon ba tax mun woon a ñëw fan yi nag mu amoon occasion ñëw Sénégal ci benn colloque bu doon defee fii ci institut islamique bi yàlla xiir ko ci sëñ Touba ak yoonu kon lam yéene woon ñëw gi xam naa mu ne faaw mu ñëw dafay war ñëw sax def fi benn fan wala ñaar rek dellu waaye xam naa li mu gis ci dëkk bi ak ku gis li mu fan yi da xam ne Eh, mel na ne ku am ndimbal la ku yàlla baaxee eh, mu am lu mu ci sëriñ bi ak Touba ak doxeenu lislaam fii ci dëkk bi saf na ko lool ba sax xam naa ne dana fi gën a defaat tuuti ay fan ci biir loolu it bëgg na visiter eh, dëkk bi li fi am ci ay boromi xam-xam tey ñëw nañ daje na ak sëñ Ahmad Badawi ak waa université bi waroon na faa def sax benn conférence waaye yàlla dogal xat-xat yi ak tolluwaay examen yi ñu toll xam naa mënut euh, waaye euh, Touba it fa ñëw te ñëwoo ci jumaa ji Touba it bu fi ñëwee faw mel ne muqaddamatul xidma ak liggéey bi ñuy def ci yoon wi kon ñoo koy dalal kon ñu xam ne ganug sëriñ bi la ganug yoonu murid la boroom xam-xam la. occasion mel nii nag danañ ko ibbil mu wax euh, yëg-yëgam ci yoonu murit yëg-yëgam ci senegal yëg-yëgam ci yoonu murit waaye yëg-yëgam ci Serigne Touba kon du ñu def lu dul bàyyi ko mu indil ñu ay kàddu balaa boobu ñu eh, def ko introduction en en ndax euh, mu. gën a public bi déglu ci arab xam ko kon bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nahnu al aan fi rihaabi al masjid al jaamia fi tuba al mahrusa wa maana dayfun aalim allaama min ulama al maghrib min al zaawiya ad darqawiya wa min al ashraaf الصوفية الذين لعبوا دورا بارزا في نشر الإسلام والدفاع عن قيمه النبيلة في أفريقيا بوجه عام إلى بين أن الضيف له أيضا زاوية ناعية ناهية أخرى وأنه عالم وباحث كبير وكاتب وشاعر wa man yutaabi mansuratihi ala alfays yaarif jiddan mada tamakkuni min al luga wal balaaga wal adab wa huwa bil munasaba ustaaz balaaga wa tahdil xitaab assuufi tahdil xitaab wal balaaga wa lahu nafas ruuxi nafas suufi amiq jiddan wa ana aarifu an kasab منذ مدة التقينا في المغرب عند في ملتقى عيون الأدب ومن ذلك الوقت إلى الآن تودت الحلقات لأن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ولعلنا لنا أخوة روحانية منذ الأزل منذ ذلك الوقت ما زال العلاقة يتوطد وحتى كان فيه في طوبى في أظن في 2017 كان فيه ملتقى صوفي وتلقى الدعوة للمشاركة ولكن كان هناك mawaani xaala min duni alwusul ila Touba min zalika alwaqt ila alaan ma zal yurid an yaati li ziyarati almadina wa altiqa bi alulama wal afadil huna wa ziyarati alcheikh wa darixihi wa ziyarati almaalim daarisa fi almadina bima anna Touba kama huwa maaruf madina ilmiya madina madina saqafiya madinatu alwilaya wa al axlaq wa al salaax idan kama qaal huwa عندما كان عندما زرنا الجامعة يعني تكلم بكلام لا شك أنه فيه يعني إلهام صوفي إن شاء الله أظن أنه سيشير إليه حينما يأتي الدور ولكن هذا الكلمة يعبر جدا عن مدى عمق فهمه لطوبى ولدوره في nasri al axlaaq wa nasri al qiyam al islamiyya al fadila fi al qaara al afriqiya wa aydan indama wasala ila tuuba nashara ala al fays kalimat jamila jiddan an tuuba wa an saakinihi wa an awliyaa saalihin fi lmadina واليوم ايضا عندما في صباح الباكر باكر وجدت ايضا انه نشر كلمات رائعه جدا وبليغه جدا يعني استاذ البلاغه la nastagrib an yakuna hunaka misle hadi alkalimat albaliga an fi an tuuba wa an wa innama wajadtu alkalam bi balagatihi wa ma yashiu anhu min anwar wa jamal qult la budda an nutarjimo ila alfaransiya hatta yastafid minhu natiqin billuga alfaransiya naam ma sha allah wal an kama yaqal wolof la nee na tungni dun teew ñuy nataal la yufta la yufta wa malik fi almadina ana nahnu ma hadihi كوكب النير والأستاذ البليغ نتركه الكلام يعبر عن يعني ما يكن في ضميره من محبة ومشاعر تجاه السنغال وتجاه طوبى وتجاه ولي طوبى وأوليائه وساكنيه وما رأى فيه من علامات ومعالم إسلامية جميلة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لعله من نافلة القول أن أشدد أكثر من مرة على أن أرض السنغال وجوهرتها طوبى هذه البقعة الطيبة الطاهرة لعلهما بالمثنى الذي يصوغ مفردا خاصا بهما لعلهما أو لعل هذا المفرد المفرد الفريد يعتبر فاتحة نور على إفريقيا كما أن فاتحة القرآن هي الحمد لله رب العالمين ذات السبع المثاني بهذا العمق الروحاني تلقيت أول نسمات هذه الوقعة الطاهرة وفعلت فعلها لأنها بالفعل أنفاس شيوخ وأولياء تزم تبستنت أرواحهم في فضاء الله سبحانه وتعالى ولعلي أقول وأنا الذي تطأ قدماي أول مرة هذه الأرض لعلي أقول وجدت نفسي بين الانشراح والتشوف أما الانشراح فما خلفته في هذه الأرض من طمأنينة وسكينة جعلتني أصغي إلى رواية القلب قبل ما يصدقه العقل ولعل من تحف العقل انه يشعرك بما في باطنك وما يخفى عن عقلك ولعله كذلك هذا الانشراح ان يفهمك ما لا يقبل تاويلا ولا تفسيرا الا اذا كان من خاصه اهل اولي العزم والراسخون في العلم هؤلاء الشيوخ الافاضل الاولياء الذين ظل أثرهم قائما بعد أن انقضى زمن الوحي هم الحقيقة الكبرى والجوهر الفاصل الذي ينير به الله سبحانه وتعالى هذه البلاد هذا عن الانشراح أما التشوف فإني من وراء حجاب كنت لا أبصر وحين انكشف هذا الحجاب ورفع الغطاء رأيت ما لا يرى رأيت أنوارا تمشي وأحياء تعلق بها الحياة ولا تكترث بالحياة كأن هؤلاء صدوا عن الحياة وأقبلوا على الآخرة لا تلهيهم تجارة ولا دنيا ويعشقون في الله كل خير حينما تتشوف الى هؤلاء فانت ترى بينهم اجنحه الملائكه تحفهم وترى انوار اليقين تصاحبهم وترى فيهم كل نبيل وخير هؤلاء الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما من هؤلاء بنيت هذه الارض ومن هؤلاء جاء نسل كريم يحيي معالم الشريعة ويقيم حقيقة العدل في الأرض بنور القلب ليس بدعا أن تكون طوبى وهي المشتقة من طيبة مدينة الرسول طيبة أخرى في هذه الأرض في, مشار في مغارب الأرض هذا الأمر الجليل أو الجلل هو الذي يجعل هذه البلاد مائزة عن غيرها مختلفا مختلفة عن عن عن أنظارها لا شبيه ولا نظير لها تكاد تميز بالفرح والغبطة والسرور والطمأنينة والسكون وما لا يوجد فيها وما لا يوجد في غيرها يوجد فيها هكذا كان التشوف وما زال الإقبال على هذه الأرض يحثني إذا بقي في العمر إن شاء الله بقية أن أعيد وأن أكرر الزيارة في أن آخذ بقسط أن أنهل ما استطعت إلى ذلك سبيلا مما فيها من تحف ومما فيها من حكم ومما فيها من جوهر كلام فما تركه الشيخ الخذيم رحمة الله عليه من أقوال وأفعال وبصائر تستحق أن تشد إليه الرحال وأن تبنى به معالم الكتب وأن تؤسس على ظاهره كثير من العناوين الكبرى هذا الرجل بهذه القيمة المتفردة يكاد فيما أرى والعلم لله أن يبعث أمة يوم القيامة وحده من هذا التشوف كذلك أجد أن الروح الكبرى والفاضلة لكل معالم هذه الحاضرة التي بنت الإنسان وعمرت الأرض بالعمران الروحي أرى أنها كانت تصنع الرجال والقلوب قبل صناعة الأبدان فارق بين من يبنى بالأطيان وبين من يب وبين من يبنى بالوجدان حين تبني وجدان المرء فأنت تؤسس عقيدة تمشي على قدمين ولكنك حين تبني أو تؤسس الأبدان فإنك تفرغ الإنسان من الكيان هذه هذا الطيلسان الجميل وهذا التطريز البديع وهذه التحفة النيرة أكاد أقول لا توجد إلا في طوبى طوبى لمن جاء إلى طوبى وطوبى لأهل طوبى بما هم فيهم بما فيها من طوبى وأتمنى لهذا البلد وأهله كل التوفيق والسداد والازدهار والإعمار والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu di ziyaara ñëpp di ñaan suñu bi yàlla na may ko fanu gudd ak wér géeram di ñaan tim waa ëtt bi ak daara ji ak ñi nga xam ne ñoo jiite jumaa jeeg yëpp dafa leen tawfiq ak comme gan googu nga xam ne moo doon wax sànq te sëñ si waay bu ñëwoon fi doon fi jotati ay kàddu lim njëkk wax rek mooy mi ngi sant bu baax di gërëm teew gi nga xam ne teew na ko si barab bu sell bi bi nga xam ne mi ngi naan barab bi de képp koo xam dëkk na fi rek ñeel na la ñeen koo xam ne ni ñeel ga texe àddina ak àllaaxira koo xam ne ni keneen koo xam ne ni dëkku fi amu ko loolu rek mi la si ñee deuxièmement nee na am kontaan te xéewal gi nga xam ne fi mu toll nii gis na ko fi si xam-xam ak yar ak tarbiya nga xam ne tarbiya ruux la tarbiya tarbiya boo xam te rek yàlla kese la mu ngi gis ko si kilifa yi nga xam ne fi mu toll nii kilifa gi def na ko si ñun ak njaboot gi nee na loolu gisu ko feneen fu dut fii rek la ko gisee. nee nag nee na nag koo xam ne ni fi mu toll nii day wuti wuti xam-xam xam-xam boo xam ne xam-xamu zaahira wala xam-xamu baatin jërut ngay dem feneen foo xam ne nii dem nga ko uti ji ko ko boo ñëwee fii fekk neen nag tabaaraka rahman lépp loo xam ne ni doomu aadama nit ñi àddina bi ñoom ñu ngi koy dox di uti walla développement si wàll ay affaire u ay affaire u tabax ay affaire u eh, eh, technologie ak leneen ak leneen noonu nag Touba moom ñooñu dañoo taxaw si defar nit pour mu nekk nit koo xam ne ni boroom xam la ba pare nekk nit koo xam ne nitu uh, baatin la ba pare nekk zahir nit ku xam boo xam ne ni si rek lay dox ak ruuxaaniya nee na loolu tabaaraka rahman loolu gis na ko fi xam na ko fi ne nag doon na mébét ay ci jamono yu métti ay ati at pour mu ñëw Touba waaye nag mébét googu mi ngi koy bëgg mu demaat ñëwaat fi benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du ñetti yoon. neen nag tabaaraka rahman doomu aadama li nga xam ne fi mu toll nii moom la fi ñëwee mooy xam-xam ak alxuraan ak jaamu yàlla neen nag boo ñëwee fii rek fekk ko fa. lim wax yépp daal li si gën a am solo mooy nim gisee. nit nit ak Touba si wàll sell si wàll yar si wàll bëgg bëgg kilifaam si wàll suluk si bàgg rawxaane si wàll dalam noonu gisu ko feneen foo xam ne ni gis na ko si àddina bi fudut fii nee nag loolu noonu nag bu ko defee rek xamal ne mag yi ñoom ñoo ko fi samp ñoom ñoo ko fi ji ñoom ñoo ko taataan ba gis ko nee nag tabaaraka rahman mi ngi siy defi ay gëstu yu bëri am na gëstu yoo xam ne ni sax def na ko ba def ko si Facebook beeg yeneen ak yeneen ak yeneen te am na yeneen xam-xam yoo xam ne ni bëgg na ko see def si sëñ bi ak yeneen ak yéen ak njaboot ak sëñ bi ab képp koo xam ne ni wàllu tariqu murid lay dem moom nag si gàttal daal nee na tabaaraka rahman ubbi na buntam pour ñëw pour mën a ñëw nekk suñu ambassade si tariqa murid fu mu mënta nekk mën a liggéey ak ñun mën a taxaw taxaw taxawaayu koo xam ne ne taalibe la takku ndigam ñëw pour xidmaal sëñ bi rek loolu rek moom moo ko jot amu leneen lu dul loolu loolu nag tim nee tim lii nga xam ne nii mooy xew-xew bii di nga xam ne mooy suñuy xew-xew te ñu ngi koy waajal fu nekk mu ngi ñaan yàlla bu ñëwee ak jàmm ñu def ak jàmm ak salaam ñu ànd si tawfiq ak tey taysir ba liñ ci mënoon ren defaat ko déwén si ëpp loolu noonu rek si bi jaay Cheikhul Khadim nee nag wax dëgg yàlla am nag moom moom nit koo xam ne nii tasawuf rek lay dund waaye lim yëg jour fanaan fi lim yëg musu ko yëg si ruuxaaniyam si si si xam-xam si wàllu baatin si wàllu zahir musu ko gis feneen ba loolu sax daf ko def ba dafa am ay wax yoo xam ne nii wax na ko wax yoo xam ne nii li ñu naan nafsatu masdurin sa xol lay génnee rek directement dem si ab xol mu ngi ñaanal dëkk bi di ñaanal nit ñi di ñaanal kalifa bi di ñaanal njaboot geeg yëpp tabaraka rahman ak daar ak ñi nga xam ne fi mu toll nii ñoo ñu teetoon te dem na majma al qadim daf na fa tesee nañ kilifa yëpp tabaraka rahman leen mi ngi leen di ñaanal yàlla dafa leen tawfiq ak taysir dëkk bi yàlla def si jàmm ak salaam bi jaay Cheikh Al Xadim li mu wax yëpp rek daanaka mënu ma ko wax nag waaye nag eh, dama jéem rek pour mën a jotal yenn yi waaye li si ëpp solo rek mooy li ko dafa yéemu lool si dëkk bi dëkk bi daal yéem na ko lool nit ñi fa nekk tim yéen na ko seen seen seen meluwaay yéem na ko seen wàll bëgg alquran seen wàll bëgg xasaayit seen wàllu teggin seen wàllu ruuxaaniya yooyu yëpp daal tabaaraka rahmaan yéem na ko

translate into, into English and send it to me right now. I will just read it. By the Moroccan poet, philosopher, and scholar Ismail Hamouni, Sheikh Ismail Hamouni. Neither explanations, nor clarifications, nor analyses, nor interpretations, nor exegesis can capture the spiritual depth of this blessed land of Senegal. they, man, they mentions blur before you lies multiply and you wonder am i am, am i seeing or hearing what I, am i seeing see, seeing or hearing in tuba there is a magnificent display of, spiritual adornment you don't need to struggle to reach the truth that has eluded you through many, many you see people's necks and hands adorned with prayer beads in the streets. Mosques and homes, all you hear is the whisper of, their beads, uh, resonating, like a spiritual hymn. You see the people as if intoxicated, but it is not from wine, it is just the, ecstasy of the Quran, seeking its dimensions and the essence of its meanings, as if say, they alone are responsible for its uh, reception, understanding, transmission, and the, fu of its message. The essence of life here is profoundly spiritual. The language of the heart follows onto the land, and you realize how deeply you are engulfed, in an ancient that left you no way out. Here, it established that the heart is the master of languages, the beginning of relationships, and the first understanding of the meaning of life. This is how Tuba begins to teach you the foundations, the secrets of origins, and give you the keys to access beyond the judgments of the mind. It doesn't hide that it is a world of mysteries, miracles, profound peace. oh Lord, open my heart to Tuba so that I may see my heart expand, release from the old thirst, find its own inner expression, and reconcile what is in, conflict to reach a blessed interpretation. Uh, that's, uh, that's it. I think uh, it is it beautiful. Even in English, it is beautiful. In Arabic, it's more beautiful, but in English, it's more more beautiful. Thank you so much, uh, Sheikh Halmoni, uh, the best, the, he was the first person to teach me English in Tuba. I was in the Quran school, Uqsum Bilal Just because of his blessings, I become. got my I in English literature in Morocco. Uh, Abdul Malik Saadi. He was the first person to teach me English.